waaw. ñu gis ne yëpp yaa ngi ay tàngal jinjeer ñoom seen. waaw bëgg rek. Mhm. Eh, kon daal jamono ji yéen koor gi sañu leen waaw neex na trop yal nañ suñu borom yàlla defal wér ak wér la rek gun mën a jaayee ji. sak fukki dërëm rek. ah sa ñeenti sa fukki dërëm. ah ñeenti dërëm. waaw fukki dërëm. lii bi la mant waaw pour bëgg ba euh, kii bi saf rek. waaw. non yokkuñu ko sax ñi ñi koy jaay moo ñoo ko yokku rek fan kay bayee lañ ko yokkee rek mais du ñun sax. Hmm. lii takk ñaata na takk fanweer am takk cent franc saami fukki ah, lay jël. ñaata man pas cinq mille lay jënd di ko détaillé. des fois ma doo wàcc rek doo yóbbaale dara. an kay damay kay dama koy def kay parfois ma wàcc du ma yóbbaale waa koor gi rek lay faral di dox de. koor rek nga jaay naan. déedéet man avant koor damay jaay naan Daara Jolof. Daara Jolof di ñëw Daara ñoo ma koy yónnee. ñun ñun ñun ñun ñooy waa Daara Raxbaan ku ñu gisuti dégg nga ñu ñun suñu tool lañ yore di ko bay ci la ñuy góob di indi di ko yéwénal. waaw. dañ koy bay ñun ñooy waa kër sëñ Abdou borom dër bi di góob suñu naanaa. di ko oyofal di ko jaay ci marché bi duñ jaay kenn përe bu seer mook salaat si man naanaa salaat laay jaay danaa jaay man danaa jaay pasti danaa jaay soos waaw loolu laay liggéey takk lu ma waay fay rek su ma ci amee dara rek lu mu tuut tuut xëy xëy bu ma dërëm xëy bu ma ñaar xëy xëy bu ma dara. kon daal yow ñu waree fii laay toog di jaay di jóge daal raxmaan di jaay. waaw koor gi man du ma yokk koor gi ah dañ jënd naanaa dañ jënd salaat waaw loolu de danañ ko jënd loolu danañ ko jënd man boo ma boo ma waxee jaay ma ma jaay ba defaral la ba sa xol sedd waaye man du ma jaay pare bu seer ah. ñu war cee am nag duñ jëndee yóbbu ca kër ga te naanaa ji seer trop naanaa ji kenn mënatu koo jaay takki kii seer na lool loolu daal laay am na lu ma ah banambaane ñoom ñiy bay de ñoo ko seeral ñiy bay ñoo ko seeral bu ñëwee fii rek dañ koy seeral ah ñun moom xam nga ne ku jaay ma bëgg nga ca dara loolu rek la waaw torop sax torop torop torop maa ngi nii gis nga takkee ma jën maa ngi koy nëpp ni bañ mu yàqu mu yàqu fa sëng ah, du bari de waaye nag loo ci am rek moo gën toogaay ba njaay mi daal nii xut ren nii xut de yéen a ci jàmm ba ordinair 300 ordinaire 250 moom rek lañ koy yëngale waaye jaay ko dañoo të waaw doy na nag cak <laughs> bii winto bi waaw dañ koy def ay jus waaw dañ koy def si